lay lay lay présidente ziar nañu la lay maxtar sa xalé sa doom namon nañu la hein Yeah. Thank you. Wow.